parcelle su ngeen ko gagné am na ci apport. non Parcelles Assainies toute la mouvance présidentielle s'est battue corps et man maa doon coordonnateur bi Amadou Ba mbay Ndiaye tous les alliés on s'est donné corps et pour que Macky Sall gagne amul du amul dividende Amadou Ba wala dividende Moussa Sy amul déedéet mais nag man j'étais déterminant dans la victoire. élection yi su ma àndaloon Sonko mu gagne non si. xanaa pourquoi gagné wu pourquoi pourquoi ñu gagné le 2000. mais wax naa la ko. déedéet. mais wax naa la ko. non. wax naa la ko non. mais wax naa la ko perte référendum perte perte législative. pourquoi mais mais naa la ko mais président Macky Sall recevoir na Amadou Ba avec sa délégation au palais ils ont déclamé que ni dépensé nañ plus de 300 millions débauché nañu samay jeunes samay samay samay agents municipaux c'est vrai débauché nañ leen oui c'est vrai bu mu ñëwee parcelle en 2016 il a débauché mes agents il a débauché des conseillers.